wa ridallahi alxaalid an jami almuminin ayuha alixwa alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk jullit yi gannaaw bi nu sante yàlla subhaanahu wa taala jullit ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo mam kàttan am sañ-sañ am man-man ñu tàllal ko loxo ñaan ko képp ku amee feebar ak bum monti doon yàlla na ko yàlla jaar ci kàttanam boobu ak mbaaxam boobu saafara leen ñaan ci yàlla subhaanahu wa moom ki moom ñu ñaan ko ñi nga xam ne moo leen moom ba yóbbu leen ñoom ñépp ñu ñaan leen yal na yàlla defal leen leer ci seen biir bàmmeel ñu jiiteel ci nag kenn ci mag ñooñu nga xam ne heure bi su fii la doon toog sunu kanam jàkka ji walla jumaa ji jaraloon ko lu ne mu sonn ci lool moom ak mag ñi nga xam ne ñooñ la ko àndaloon muy góor gi Mbay Njaay moom ma nga xam ne dem na deful lu tax yàlla yóbbu ko bàyyiñu fi waaye ñun ñi fi desandiit <coughs> defalul yàlla lu tax mu bàyyiñu fi li kulli ajalin kitaab ku nekk rekk dafa am dat bu la yàlla programmel ne dat boobu su jotee dem rek ngay def moom moomu nag datam moo jotoon ci bi ñuy waaj a tabaski yàlla yóbbu ko waaye ñun ñi fi desandi suñu bés dafa ñëwagul waaye ñu ñaan rek mu yàgg lool ñun nañu nag ñi nga xam ne ñoom la fi bàyyi ci ay mag mooy mag ñi nga xam ne ñoo taxawu jumaa ji ba mu yegg si fi tey ñu ñaanal leen yàlla ñoom it yàlla na yàlla bàyyi leen ci jumaa ji ba dem ci téeméeri at ak lu topp yàlla mën na ko damay faral di wax ne imposibilité amul ci service su yàlla yàlla bàyyi nit mu dund téeméeri at ak lu topp du dara ci moom comme xamuñ li ñu yàlla àppal nag nanu ñaan rek yàlla may ñu lu gudd te ban ànd ak barke nag ñu ñaanal leen ñoom jiital ci imaam alhaaji Samba Diallo ak ñu topp ci gannaawam ak mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo taxaw jumaa ji fa tabarakallahu yal na yàlla gën leen may kàttan ak ñu yàgg fi lool ba bés saa yu ñu gis geesoo rek gis leen yal na ko yàlla def nuyu imaam aadama Faye mi nga xam ni mooy sunu sëriñ ci daara ji di sunu ustaas ñu ziyaar ko mook ak asatis yi ne ci daara ji ñëpp Ah, di ñaan nag ñaan boo xam ne peut-être bu ñuy tëj danañu wax mbokk yi ñu ñaan ko mooy imaam ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci jumaa ji mu am benn bureau bu bees boo xam ne moom lañ teral mag ñi woo ndaw ñi ne ñëw leen ngeen jàpp ci parce que yéen a ëpp wér ak kàttan kon nag loolu ñu ñaan ñoom mag ñooñu yaakaar bi ñu am ci ndaw ñi bu ne leen kaay leen ñu ñaan yàlla yal na yaakaar boobu gën a jëm kanam ñoom it li ñu yaakaaroon ba nangu ñëw ñoom ndaw ñi wala ñun ndaw ñi ba nangu ñëw topp seen ginnaaw yaakaar boobu it yàlla bu ko yàlla tas fépp fu ngeen um indi jumaa ji bu mu mel ni ci taar yàlla ñu yàlla may ñun kattan ba ñu yóbbu ko fu ëpp fii mu toll ndax xam nga lu tax maanaam jumaa ji mu ngi commencé woon ci baraag dem ba ñu def ko tiwil ñuy dem di dem di dem ba mu mel nii gàcce ngaalaa ma ñi ko taxawoon ba mu yegg si fii kon ñooñu euh, lu nit mën a def lu dul ñaanal leen rek defoo ko kon ñu jara ñaanal lañ yal yàlla may leen wér ak gudd fan ñii ñëwit yal yàlla may leen boo jumaa ji lépp loo xam ne mooy ay projet yi ñu ci am muy ki ko jiite nga xam ne mooy imam Samba Diallo di imaamu ratib bi waaye ñi nga xam ne ñooy comité bi mooy Abdoulahi Ndiaye nga xam ne moom lañ def président jumaa ji waaye ki nga xam ne moo yor trésor bi te mooy sunu mbokk Abdoulahi Diop ñaari Abdoulahi la yàlla indi ci bopp bi Abdoulahi Ndiaye ak Abdoulahi Diop secretaire général bi muy sunu frère muy amadu Diallo ki nga xam ne moom lañu ñu dénk teg ci loxoom organisation ñëpp jàpp ci mooy sunu rakk muy Pape Wade ak ñi war a topp seen gannaaw ñoom ñëpp te loolu imaam xëyul rek dugg ci ruqam def ko imaam xëyul rek dugg ci ruqam ne ñii ak nii ñooy yor lii déedéet fii lañu woote ñëpp ñëw te xoolal ñi ñu fi tudd ci ay tur ku ñu ci wax rek la ñu ciy wax ci ci capacité ak droiture am maanaam njubam ak maanuteem macha allah kon nag allahuma la addurru yal na leen yàlla may ba loolu mu wéy incha allahu te nag dana wéy ndax bu defal yàlla moom eh, bu yàlla rekk taxee rek yàlla moo lay teg loxo kon nag yàlla nañu yàlla teg loxo ba lépp loo xam ne moom lañ ci yéene yàlla mottali ñu ko bu ko defee nag suñu waxtaan ñu dellu si rek gannaaw bi ñu leen jaalee sunu wayjur boobu ak sunu fereer di doomam ka ca topp muy Pape Ndiaye eh, yàlla daal kéemtaan yàlla moom bés bu nekk mu wone boppam wa fi anfusikum afala tubsirun alquran bu ne bu ngeen xooleen seen bopp te waaruwu leen ci rek doote leen waaru est-ce que ñun danañu xool sunu bopp ba waaru ci xool nga doy na kese kese e, waar waar nit doomu aadama taxaw sa kanam di xool doomu aadama taxaw ci kanam di wax doomu aadama taxaw ci sa kanam di ngay wax muy dégg te xoolal yàlla ni mu defaree doomu aadama def ci ñoom moom ay fiil def ci moom ay canal kanaal yooyu yëpp bu fekkoon ne tubaab moo ko defar bu commencé fonctionner rek riir bi bari maanaam machine bi yàlla def ci nit muy fonctionner xool nga machine boobu ngay dégg muy riir ba yegg si fii tubaab a ko defar fekk nag yàlla bind na machine ci nit muy appareil bi yàlla def ci doomu aadama xoolal appareil boobu li muy riir ak tàngaay bi ne ci biir appareil bi kenn xamul ni mu toll waaye xoolal appareil boobu yow mi yore appareil bi sax appareil bi buy yëngu sax doo ko dégg te mooy biiru doomu aadama xoolal bu fekkoon ne appareil boobu dafay def bruit kon bu ñu ñëwee ci jàkka ji di julli kenn du dégg waaye yàlla fexe ba appareil kenn ku nekk nga yore ci sa machine machine bi di fonctionner te yow mi dend ak moom wala yow mi nga xam ne yaa yore appareil bi sax doo ko dégg xikk ma yàlla la mu def ko ci nit mbokk yi xoolal nga toog fii am ku la woo fële ci biti nga dégg ko te benn fiil doxul sa diggante ak moom ma boobu yàlla rekk a ko man mbokk yi dara gënu lay yéeme ci nit loo xam ni mooy tax ngay lekk mu rees bu ko defee yeneen yi mu fexe ba mu dem ci sa yaram te mooy circulation deret ji loolu bu fekkoon ne nit moo koy fonctionner boo nelawee dootul dox waaye boo nelawee muy fonctionner weer yi nga xam ne moom la ñu nekk muy shahrullahil muharram eh, muy ñu dem ci benn feet bu tudd ashura ñu di ko wax tamxarit kon dana jaadu ñu wax lan mooy feet ndax ashura tey bu ñu doon wax ne iidu ashura wala al iid ci boppam mën nañu wax ni fursatun li tajdid al ahd bi aqiqa al wa tawxid al wa jamci shamli wa fursatun lil atfi ala al masakina ala al masakini wal muhtajin bu ñu ne feet ñu ne benn occasion la boo xam ni dangay bee salaat kóllëre ci sa benn mbokk jullit ngeen jéema bennal seeni kàddu waaye fexe lépp lu ngeen di def ngeen ànd bokk ko mu ne waaye feet bii tamit occasion la pour nga am ñewent mën a dimbale ñi nga xam ne ñooy miskin yi ak ñi nga xam ne ñooy alyatama ak ñi nga xam ne ñooy almahrumin mooy ñi ñàkk ak jirim yi ak ñi nga xam ne ñooñ la yàlla def seen doole seen kattan seen man-man defewul noonu mën nañ wax ni moom fursatun taarixiyatun mutamayizatun ashura bés la boo xam ni li gën a ràññeeku ci bés bi mooy ku nekkoon ci xat-xat yàlla génnee la ci xat-xat bi mu tombeek bésu asura wala mu am balaa bu wàccoon ba yàllay dindi balaa gi mu tombe ak bésu ashura wala koo xam ne yàlla teg na ko nattu mu doon ak ashura boo gisee li ciy xaw a am ci ay ñi koy feetoog ñi nga xam ne duñ koy feetu loolu mooy indi ixtilaaf bi ci am boo ñëwee ci ñun jullit te muy ahlu sunna yi dañu wax ni yàlla ba yàlla waxee aadama duggal aljanna mu dugg fa waxoon ko ni garab yi nag mu lekk lu ci neex waaye bii bu laal bu lekkee garab ga yàlla wàcce ko ci aljanna waaye déey ko ay baat baat yooyu ba ko aadama jànge yàlla jéggal ko ay bàkkaaram ya nee na mu ngi tolloo ak bésu ashura kon jullit mën nga wax ni loolu yàlla defal sunu maam aadama kon mbégte la ci yow ndax koo xam ne dañ la waroon a punir buñ la ne baal naa la da nga kon jullit bu koy ne mën na ko teg foofu wala ñu wax ne yonent yàlla noox ca aljudi te mooy délice ba ba mu amee mu nekk ci ay nee yu bëri ba muy teer ci aljudi ba mu fay teer nee na mu ngi tombé woon bésu Ashura fan ci weeru muharram dañu wax ne sax xool nga suñu mag lépp lu ñuy def ci benn occasion bu mënti doon boo ko toppee histoire ba rek di nga gis cëslaay xam nga dañoo yonent yàlla eh, nuux ba nga xamee ne mu ngi yàlla ne na ko defaral gaal gi nga dugg ci yaag koo xam ni mel na ni yow yàlla def ñu gaal gi mais gaal gi dafa am kéemtaan yu ci am ndax gaal gi ci boppam ndax gaal gi daf ko def ba pare bi mu koy defar am ñoo xam ne dañu ñëw di ko sabote maanaam ñu ñëw ci gaal gi def ko muy demukaayu toilette maanaam ku bugg a faj sa soxla ku bugg a dem kabine rek ñëw ci gaal gi pour sabote ko mais yàlla jëf ci benn bés waa dëkk ba rek mu am benn feebar bu xew ci ci ci maanaam comme peste bu fa am peste bi xam nga lan la ay picc koo ci gis yaram maa ngi bari picc ba ko doo xam ne muy niru xoolal am benn waay buy dox rek ci kiiwu gaal gi rek ba loolu nga xam ne moo doon kii ya mu laal ci loxoom laal ci yaramam rek gis picc yi dëñ affaire bi jaaxal ko mu dem ne bërëb nangam bi de ku ko laal dafay mel ni affaire bi day deñ am keneen ku dem moom it essayé laal ci eh, trois cabinet yañ fa defoon laal ci yaramam affaire bi deñ xoolal gaa yi ñëw njëkkalante gaal gi lañ fa doon tuur ci ay cabinet ñoom ñëpp ñoo ko mujj diwoo boo gaal gi set wicc cala la yàlla doog a wax ne is eh, eh, Nuux kon nag xamal ne nag képp koo xam ne weddina la nag danaa taw ci suuf li nekk ci kaw asamaan si ndox dana wàcc li nekk ci suuf si ci ndox dana génni su boobaa nag ku la weddiwul ku ne dina lab xool nga bi loolu amee nee na ba ñooy jug ci gaal gi defar nañ lu mel ni cereeg lu mel ni mburaakeeg yooyu am na ñu ko wax ci wàllu histoire nee na bi ñu demee nag ba gaal gi sës bi ñu xëyee ñu jël nag mu tombeel asura ñu jël eh, mburaake bi wala cee la ñu defaroon comme sànqal ak yi ci aju ñu commencé di ci def ndox di ko lekk wal nga cere yi sunu mag ñi di def ci Ashura cosaan bi foofu lañ ko aj kon duñ ko jël rek naan cere cere cere am na fu ñu ko teg mag ñi lépp lu ñuy def muy Cheikh Ahmed Bamba Serigne Siraaji Malik ak ñu mel ni ñoom lu ñuy def lu nekk am na fu am na cosaan ba dañ ko dul xam wala ñu bañ koo gëstu bu ko defee kon feet gi nag léeg-léeg coow di ji ci bari ba yàlla waxee maam aadama déy ko ko mu tolloog ashura nuuxin kazalik waaye dañu wax ne ki nga xam ne mooy yonenti yàlla ayub wala yonenti yàlla yunus ca biir jën wa ba nga xamee ne génn na ca la mu doon wax ca biir géej eh, jën nga te mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin moo tax ñu wax ne doomu aadama bu mën a am problème wala nga am tiis loolu kese kese mën na dindi tiis wi te mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin xool nga loolu mbokk yi jar na di bëri lool kon na ku ko man difficulté ba mënate am rek jàngal loolu yàlla mën na la cee génne moo tax aadama ba ko yàlla joxe baajate mooy na rabbana zalamna la in lam taxfir lana wa tarxamna na min alxaasirin yàlla day tooñ nañ sunu bopp kenn du wax ne tooñ naa yàlla mais tooñ nañ sunu bopp xam nga tooñ sa bopp mooy yàlla waxoon na ko bul laal garab gi mu laal ko kon moo tooñ boppam ndax yàlla waxoon nañ bu ko laal kon nag bu ñoo ñu jéggalul rek ah boo wotu ci pertement la ñu jëm kon nag yàlla nañu yàlla jéggal suñu bakkan ñu nit beneen bi ci des yonent yàlla Moussa moom itamit bi ko yàlla nammee sauvé ci Firawna ba muy dajeeg moom ca baxlu xalsuum nee na la taxoon ba muy jéggi ba mu rawee nee na mu ngi tombé ak Ashura te Moussa bi muy juddu dafa tombé Firawna def benn décret mooy décret bi mooy ndax nee nañ ko at mi moom ku ci juddu ku nekk di góor boo wattu mooy jël sa sa pouvoir bi mu sàkk ci pexe pexe bi mooy ku juddoo di di góor rek ñu rey la yàlla atte nag Moussa te dañu wax ne ku juddu ren di góor ñu rey la ku juddu déwén di góor duñ la rey maanaam ñu di ko alterner yàlla def benn at mi ci Moussa di juddu at moomu ci kedi at ci juddu ku ne di góor dañ la war a rey nga xam ne dafa amoon brigade boo xam ne mooy wër kër yi fu mu ci gis ku am doom boo ñëwee ne diw am na doom bu góor su boobaa yow mi ko wax na dina la jox récompense am benn waay nag buy dox ba yegsi ci yaayu Moussa gis doom ji mu ne am naa occasion nag pour sama poos bi ma am dara mu ne na dem ci na wax ni am na liir bu ne ci kër sàngam xam nga li wolof di wax ni garab gi bor a doon pénc law du ko gis ba di ko gor waa ji depaar uut si firawna aleykum salaam bismillah mais ba jub firawna pour war ko ko wax rek yéeg si foofu rek yàlla tiye làmmiñ wi mu ñëw jub si firawna mënatul wax ñu ne ko lan la waa ji mënatul wax mënatul def dara firawna ne garde yi génne leen waa ji pale bi ñu génnee ko pale bi mu dem dem daal génn palais bi rek commencé waxaat mu ne non fokk ma delluwaat dellu saat ñëw ba jubaat ko rek yàlla téyewaat làmmiñ wi mu génni yàlla ne garde yi waa ji bu fi ñëwatee yéen laay punir xoolal mu ne la dem dem daal ndax koppar yi dafa bari mu ne naa delluwaat xoolal bi mu dellu ñëw ba jub pale bi rek làmmiñ wi yàlla téyewaat ko mu ne nag lii nag lu sérieux la xoolal moom nee nañ waa jooju ca la moo njëkk a tuub moo njëkk a jébbali ci Muusa te booba mu ngi nekk liir xool nga waa jooju moo dem defaral yaayu yaayu e, Muusa kooku moo ko defaral fi pañe bi nga xam ne ci lañ ko dugal ndax ministre la woon mu yett defaral ko ko ba nga xam ne pour nga dajji ko problème lay doon kooku moo njëkk a nekk taalibe yonent yàlla Moussa xool nga bés bi ko yàlla di sauver moom yàlla wëlbati ko yar ko ci biir pale bi muy lekk ci alalu euh, na dund ci moom di yaru ci biir këram boo wëlbate ko nag yàlla ne ko nag demal nga ne ko nag mu gëm yàlla te bàyyi bokkaale gi ndax yeggoon na ci ana rabbukumul aala moom moom moom Firawna may seen borom bi gën a kawe maa alimtum maa alimtukum min ilahin xayri xamalewu ma leen beneen yàlla bu dul man waaye biñ koy naq ci géej gi xam na ne du yàlla ca la wax ne laa ilaha illa allazi amana bihi banu israil maanaam ki yàlla ci waa biir ganu israil daal ñi ki ñu gëm mooy yàlla kooku mooy mooy jar gëm waaye nag te c'est trop tard bi mu koy wax xoolal yàlla ne ko nag danaa fexe ba sa yaram wi yow eh, dinga dinaa la rey waaye sa yaram wi du yàqu xoolal dafa mel ni loolu li koy firnde mooy momifié bi am ci àddina si léegi xoolal ba tey boo demee Égypte danañ la won yaramu na ba nga xam ne intact na mu meloon dara dañu ci loolu li muy wane mooy yàlla mën na lu nekk xoolal ay nangami siècle ba léegi yaramu na boo demee ñu won la ko en Égypte kon loolu bés boobu la tombe woon bu ko defee nag ñu wax nii bésu asura boobu li nga xam ne moo ci am nit ñi war ko gën a bàyyi xel mooy juróom-ñeenteelu fan bi nga woor ko ak fukkeel bi te mooy suba ak gannaaw suba ci ñi koy def ndax am na ñu wax ne tey ak suba <laughs> duma ci kii kenn l'essentiel kenn ku ci nekk boo koy def na nga am conviction ne yàlla moo tax nga di ko def ndax daa diine ji moom boo ko xatalee rek tooñ ndax mën nga def démb tey keneen def suba keneen def gannaaw suba te yàlla dina nangul ñëpp ndax yàlla yërmande moo yaatu mel noonu bi ci des nag mooy sunu mag ñi am na sax euh, parce que al Bayhaqi nee na xadis boobu wér na ñeneen ñi ñoo jam xadis bi te mooy euh, juróom-ñeenti wala fukk yi ñu wax ne dañ koy def ci bés bi te mooy bokk na ci qul huwallahu ahad yi ñu jàng mille junne bokk na ci yaatal sa njaboot te xoolal benn bu ci nekk bu ñu ko temps bi mayoon benn bu nekk ñu indi la xadis bu wér bu koy wax xam nga bu dee ixlaas yonent bi nee na ñetti qul wallahu ahad rek kaamil la xoolal na nga jàng ci junne ñaata kaamil nga am mais nag attention nit ñu koy jàngee lañ war a xool ñu ne la junney lixlaas rek nga mel ni ma ñu yore sa kurus di wër rek jàng ñu tequl wala ahad koo dajal nooyoog moom wax ba sa ba giir continuer mais xam nga loolu taxu ñuy wax ixlaas yi toogal sa kër yow kese jàng junney ixlaas ñaata ngay am boo koy multiplier kon bëri na beneen bi ci des mooy yaatal maanaam jox sa njaboot ñu lekk ba suur yonent bi nee na xoolal ñam bi ngay jox say njaboot sarax la bokk na ci tamit ñu ne nga génne sarax sarax bu mënti doon nag waaye waxuñu ay saraxu sondeel nag moo tax ñoom imaam Samba Diallo ñoom imaam <laughs> Omar Ba ak ñoom imaam Adama Faye gars yi duñu leen sarax lenn lu ay sondeel ay sondeel ay ay pusa te bu ñuy saraxe milliards yi fee la ñuy dem bàyyi jàkk ji parce que ñee ngeen koy jox ñooñu dañ leen di euh, waxal loolu dëgg rek waaye bu dee fii moom day la wax ne yàlla mi tàng def ko dina ko gis gis na ko waaye fee moom nag fokk nga dem ci télévision pour gars yi gis ko bokk na ci tamit loo xam ne maa ngi dañ koy def mooy tusngalu yonent bi nee na tusngal dafay def dafay wëral bët beneen bi ci des mooy sangu xam nga nag loolu bu bu bu ñu ne eh, taxsus taxas taxsis bi ñu koy def mooy di ko def bésu ajuma bésu bésu asura mais xam nga ki wax ne loolu waruñ ko ankay ah, xoolal xoolal amul benn jaamu yàlla bu dul yi nga xam ne yàlla nee na heure yii lañ koy def heure bu la neex nga def ko ci xool nga naafi la heure bu la neex mën nga ko def waaye am na heure yoo xam ne da kenn du ci naafi la mais xool nga jàmm yàlla muy sarax heure boo ko defee baax na waaye xool nga saxru bi ñu tuddee muharram lépp jàmm lu dul weeru koor jaamu yàlla boo ciy def moo ëpp doole ci yeneen weer yi boo ko ci defee kon ki ko nga xam ne nag moom daf koy def en Ashura mu di ci def loolu di ci bégal ay njabootam boo ko bëggee dàqit du sotti parce que nag yonent bi sallallahu alayhi wa digle na ko bokk na ci yi nga xam ne dañ koy def mooy julli te nag julli moom dajale nit ñi def ci julli ñaan yàlla mais loolu boo ko bëggee dàq nag xaw ma foo koy dàq foo koy teg dajale nit ñi ne leen nañu julli loolu am na solo lool xam nga lu tax mooy am na naafilu euh, euh, aqiru ramadan qiyaamul layli ci jàkka maanaam fanaan fa ba bët set mais kenn waxul ni saxaaba yi dañ ko doon def mais sos ko nag so lu baax la lu baax la ndax dafay encourager koo xam ne dafa tayal mel ni man beneen bi ci des mooy liñ ci war a moytu nag yoo xam ne moom dafa xaraam te parent bu fi toog bàyyi sa doom mu sol yére jigéen te góor nga bàyyi fi sa doom bu góor mu sol ay yére jigéen tey góor xoolal bu ëllëgee balaa yàllay duma kenn paa bi laay duma moom mi ko bàyyi bu leen bàyyeeti seen doom pour nab ci doom tax nga bàyyi ko mu sol yére jigéen te góor la bul nangooti say doom ju jigéen muy sol ay yérey góor te góor ci jigéen la loolu ku ko def xool nga loolu kenn ku ko bàyyi loolu moom dafa xaraam ci bésu tamxarit lekk yàggee ca aju temps bi moo ñu dul may ñu dim ñi ndax asamaan si neexul kon bu ko defee daal loolu moom lañuy ñuy tëjee waxtaan bi lépp lu nit mën a sonn ci jaamu yàlla ci saraxe ci jàng alquran ci dikr ci bés bi def ko guddi gi loo ci mën a la def ko loo mën a saraxe def ko waaye na ko def ibtiqaan li wajhi la la ndax laa xayra fi najweekum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin bu ko defee nag suba incha allahu ci ndigalu imaamu ratib bi ak comité jumaa ji e, salaatu tasbih boobu nga xam ne dañ ko doon def fële ci ci bayaalu côté xaar yàlla bi incha allahu suba 21 h fas nañ yéen a jullee ko fii ci biir jumaa ji incha allahu ku ci am jot yàlla may lam nga am wér nga ñëw fekkee si ko incha allahu fii lañ koy defee kuy ñëwit nga indaale sa sijaada ndax ni ñuy jullee jumaa rek noonu lañ koy defee bu jumaa ji feesee ñu tëj ci biti bi feesee ñu dem ci gannaaw boobam waaye nag dañ koy limité kenn kuy ñëw na nga indaale sa sijaada incha allah fii lañ koy jullee li ci def mooy ñaanal yàlla eh, ah kuy ak masque masque it kenn bu ko fàttewaale bu ko defee comité bi dinañ veillé ci loolu Eh, kuy ñëwit nga jàppee sa kër ñëw moo gën loolu yëpp ñu bàyyi ci xel bi ci des nag mooy ñu fexe lañ cee ñaan dañ ciy ñaanal comité bi ñaanal waa quartier bi waaye rawatina nag sunu mbokk yi nga xam ne seen kër yi dañu leen doon nangu ñoo ñu ñu yéene waa leen ci ñaan ñaanal ñu dëkkee gox bi yëpp incha allah loolu moo doon objectif bi moom suba lañ ko def incha allah li ci des nag mooy waxtu julli yi bu ma juumul lépp loo xam ni